léegi nag muy ñëw am na promoteur boo xam ne yaakaar naa combat bi yëpp coow ci say lamb moo ko tëggoon 2010 muy Ligue Nicolas ren muy feete ñaar fukki atam ci lamb balaa muy ñëw yow ci combat bi mu tëgg Ligue Nicolas moom noo ko gisee ak at yooyu muy feete ci lamb. waaw at yooyu yàlla na ko yàlla def mu gën ko di def sa année mun na dem ba 40 ans wala mu dem ba 50 ans wala mu ah, loolu mooy àdduna Gaston jaar na fii. li ko Nicolas jaar na fi sëñ Modou Niang jaar na fi kon moom yàlla dogal day fête vingt ans ñoo ngi koy ñaan nag réussite totale incha allah macha allah. mu tëgg Gris 2 ak ki nga xam ne ni mooy Reug Reug xam nga Gris 2 ak <laughs> waaw waaw ah, xam naa ne baax. ñaar ñu mës daanu la gars yi wax ñu war a bëri. waaw waaw ñu mës daanu vraiment nekk làmb nag làmb bu neex a neex neex a neex xam naa ne dina bëri xeex nag. combat boobu. waaw dina bëri xeex parce que ni ma leen gisee ñaari mbër yi sañ-sañ la ñuy doxee. waaw ñoom ñaar nga yaakaar ko bu bëree xeex kan lay avantage. Oh, ñoom ñaar Gris fausse garde la de yaakaar naa wala mu nekk deux pieds macha allah waaw combat boobu daal euh, dina bëri xeex. waaw te xam naa ne benn cong lay doon. xeex lay bari ba pare am benn cong. waaw. benn cong bi ho. ni ma leen gisee ñoom ñaar kenn ku nekk yaa ngi. wane sa bopp ni li ma bëgg a def dama koy def waaw. loolu kan lay arrangé ci ñoom ku muy gën a xeex bi wala bëre bi wala. xeex bi ku gën a arrangé. ñoom ñaar ñëpp arrangé na leen waaw Reug jàpp na mun na xeex Gris jàpp na moo ko daal xeex donc ñoom ñaar kenn ku nekk xeex bi mun na bëri ku ci jum nañ la doon nga daan wala daal mais bu ñu jàppantee bëri du yàgg moom. yow yow koo gis ne moo daax xeex ci ñoom ñaar. waaw xam nga Gris moom boo gisee xeexam yu bari Euh, bëri bi la gën a favoriser que sa xeex bi ñuy wax day def li muy def cokkaas gauche droite wala mu dóor la jàpp la daan la jële bu gaaw rek day xeex même chose day xeex gauche droite jàpp bëri bëri bi donc moo tax may ne nañ xeex tuuti parce que kenn ku nekk wan nañ sa moom dama war a xeex yow mais bëri bi daal moom lu gaaw lay doon moom bu ñu jàppante. ñoom ñaar côté bëri tamit euh, nee nga bëri bi day gaaw mais côté bëri ku ci ëpp non. buñ yaakaar ne diw moo ëpp avantage Reug Reug moo ëpp avantage buñ jàpp ne tamit Gris moo ëpp avantage làmb jaar boo bëggee dégg dégg ñoom ñaar ñëpp ay mbër kaamil lañu kii bëreem teg na ko fu leer ku mu jàpp ak a jàppanteel du yàgg Gris Gris jàpp na fi mbër tamit du yàgg kon ñoom ñaar bu ñu jàppante it naa ne làmb ju gaaw lay doon kenn ku nekk say action da nga koy assurer di ko def mu wóor yàlla di may ndam. am na favori. am na favori. Hmm. loolu leer na taal Ndiaye. dañuy ñëw tamit parce que gis nañu que fan yi euh, Balla Gaye gis nañ ko ci ay terrain muy football ak ay mbër ak ay ak Wally Seck ak yooyu sa diggante parce que Wally kere laaj naa ko bëri dem fekk naa ko fu mu laaj ko mu ne da daw loolu nu mu dikkee noonu ba ngeen di waaw. dañuy football. dañoo gagné ñoom Ama Baldé léegi ñu ñëw machine yi déedéet la machine bi man ba may génn déedéet laa fa bàyyi donc xam mën naa jàpp ne déedéet la ci seen i wax nee nañ ñoom gagné nañu après machine bi bëggoon naa ñëw far ma am empêchement loolu moo tax ñëw moon mais leeral bi xam naa léegi ñu def ko incha allah dañ ko leeral suba wala gannaaw suba non suba yaakaar naa suba am naa dañ ko leeral waaw mais Wally nag nit ku baax la et puis xam nga kaaf foo ree kon nekkee woykat bi basketteur bi ni nga ko gisee noonu footballeur bi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te at ba at nag chaque année dañ koy def loolu. waaw macha allah di ñaan yàlla at yooyu ñu koy gën a fekkee. du koy def di kaf ak wan ne ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. sport la sport moo mun a boole mais sport du tàggali ko kon nag kon sport moo ñu boole muy woykat bi muy musicien bi donc nañ koy defee noonu di ko xoolee noonu. stade bi day ñi di seetaan. vraiment nee nag leeral bi nañ leen ko wàccee. loolu wa parce que ma dama gis parce que laaj naa ko Waly ma ne ko tey yow dama gis muy fal di woy waa kër Modou Lo lu bëri ma laaj ko gis ko diggante mag Ama ak gay mu ne moom dafay nekk pour ñëpp ah moom loolu la wax quoi da si ne moom yéen ñëpp ay nitam ngeen parce que ku ci ne seq na ak yow jàmm ak teraanga. waaw waaw waaw mais àdduna noonu la xam nga tey Baye Ndiaye ku ne xam ne digganteem ak ak Waly ak Aziz. kuy woy Baye Allé kuy woy <laughs> suñu yaami Xuj Diop Sóora Xalilu di woy Iliman Lam ñaan ko ay see donc loolu ne loolu la lu foor la lu nekkul loo xam ne caaxaan moo leen boole waa kër tamit mu loo kon ko waxee c'est la même chose mooy woy keneen ak keneen moom askan bi la fi nekkal dafa war a bëggal askan bi loolu mooy dabaaram ñun tamit ñu bëggal askan bi loolu mooy suñu dabaar mais dañu xool na waale tey moom mi ngi bëgg askan ñëpp la amal jàmm pourquoi pas mbër bi waru mun a am ak soxla parcelle am soxla Pikine am soxla fu ne nga dem dox loolu mooy fair play donc amoo nit waru am sens interdit fenn parce que doomu aadama la rek te doomu aadama fu ne war na fa am soxla dem faj ko fa ñëwaat toog te du ci am benn problème te loolu nit ñëpp nag moom lañ bëgg dañu ko yàlla defal ñoom mbooloo jullit